non non 16 milliards seetaatal mu defaat yokkaat ca tuuti mu ne ko il faut arrêter te te te kii nuñ ko le fait qu'il propose là tudd booy pro oh, oh. mu ne ko il faut arrêter les de con là ñam ko jox ñëpp xam nañ ko l'affaire ba s'est a à 22 milliards te bañ ko defaree ba pare mu fay 1 milliard cent mille benn xaritam mu dem Casamance wuti kooko cee kooko ci yoo xam ne dee nañu ba pare ñu def ko amul fa amuñ ñetti weer kooko cee dee mu joxeeti ñu dellooti corniche boobee ñu defaan Macky Sall ñoom ñi defaan nañ fa 19 milliards defan nañ fa 19 milliards ci ANOCI gi benn rek la leen ci laaj benn bateau bu ñu naan bateau Moussika mooy bateau yu bakkane yooyu mu luye ko pour sept jour cinq milliards neuf cent millions ñetti fan la fi bateau bi am dem ñu war a construire li ñu tudd ay villa présidentielle ba génn budget ba ba annonce yi ñëw ah agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique kenn gisul village kenn gisul budget ma lekk nañu waaye budget ba daal génnoon na dafa mujj mu fa ab cinq milliards jox ko King fat gi pour ñu réhabilité ko keroog ba ko rapport public gu IGE waxee ña fa nekk dañoo xaw dañoo waaru keroog bañ koy nommé ANOCI ay bureau mu leen di installé immeuble Tamaro immeuble bu bees sax xam ngeen installation yi ñaata 750 millions kii garde corps am ñu naan ko Kantousa bureau am rek vingt six mille vingt six millions la ko defaree ñu naan Karim Wade laa xaw la wala Karim Wade kër yi sax soxla wuñ ko woon pour jàpp soxlawuñ ko woon annonce rek doy na annonce rek ak euh, laa xaw la wala xaw bref donc euh, nit ñi tam bu ñuy wax quand même euh, léeg wax lu ñu xam hmm, baaxale na ca tuuti donc pour continuer ci Macky Sall ci ak ci fen yi Moustapha Diakhaté di wax waaw lii defe ngeen fen la waaw nan lay xamee ne projet bi fen la projet boo xam ne demaguñu ñetti weer moo ko wax de seet leen réseaux yi sociaux yi nee na trois mensonges le projet. Euh, le euh, la le népotisme ak euh, wooy wooy bi ci des noonu du katal danaa sama xel na ñëw léegi waaw projet boo xam ne nit fal fal lañ la juróomi at defoo ko lu ñetti ñetti kii projet ba nga fen fen la la nga waxoon defoo ko waaye noo koy defee noo koy defee ak euh, népotisme waaw léegi même népotisme bu ñu newoon danañ ko def waaye ñetti weer nan lañu ci mën a daal di saafara népotisme et puis népotisme je ne défends personne je défends la vérité xam ngeen népotisme lu autorité boo am doole joo xam ni dafa ci abusé da ci yëppal di ca def lu ko neex di ca def li avantage ay faveur famille am ak i proches Voilà le, voilà le népotisme. Sans tenir compte de la compétence. Il utilise son autorité eh bien, pour accorder des faveurs, pour accorder euh, des avantages à sa famille et à ses proches. Loolu népotisme. La fille en question, elle est la fille de Yacine. Yacine, ministre des Affaires étrangères, nangam. kee ma nga nekk ci artisanat jotuwuñu dara bokkul ak Diomaye Faye dara bokkul ak Ousmane Sonko dara waaw loolu wuy la népotisme népotisme bu mag ba kay moo doon Karim Wade ak euh, nu mu tuddati euh, Karim Wade ak euh, Abdoulaye Wade loolu ay népotisme seen gars yi déggoon ngeen leen ci Mansour Faye loolu du népotisme lu tax wuñ ko woon booba du Mansour Faye rek jarbaatam yeeg cousin yeeg ñi ci ëpp ñëpp ñu ngi ci dans les ambassades et les consulats loola tey bu fa ambassadeur bu bees demee fekk fa ñoo xam ni ay militants APR dong lañu bu bu bu ñëwee ñu luy oto fu ne oto jóge fa eh da ngeen di wax rupture démb ba ngeen xoolee euh, Diomaye ak ba mu fa demee nit ña bari na ñëw nit nit est-ce que comparé ngeen bu doon Macky Sall bu doon Macky Sall fu nekkaar jóge na fa avion ba day fees dell buy jóge fii yéen a ngi koy xool ñu néew fay nekk buy dellu si ñu néew ay ñëw bañ ko njëkkee wax laa naan leen loolu c'est très bien di dem Gambie gii rek toute la république se place loolu mooy waxi lan loola moom dañ na loola moom dañ na xale bii ñu naan sufi nangam man de xaw ma ko waaye am naa doom ju ko xam te du Pastef mooy sama benn doom bu dul Pastef xale boobu de li ñu koy seedeel ak li ma ci xam boroom xam-xam bu ma sëkk la boo xam ne bii teel a dugg ci Pastef am njàmbaar goo xam ne gii ni ma ko déggee ku ko bàyyi xel dimbale ko ministre bi kii ko mën naa def liggéey boo xam ne bii bu ama am njariñ lay doon waaw parce que rek doomi doomi kii la rek nëpp c'est pas vrai loolu du népotisme bu doon doomi Diomaye walla muy jarwaatam wala muy rakkam on peut parler de népotisme loolu ay ay kasaw kasaw la euh, donc Macky Sall bu ma gisee ku seen mag jooju Mamour Ibra Kane doone mu wax ko xanaa tey xanaa tey ak Moustapha Diakhaté fen yooyu muy wax liir leen li ma leen wax billaay wallaay taala Macky Sall fukk yu mu diggee juróom-ñeenti ay fen lañ tey wóor na leen li ma leen wax 3 avril 2012 seet leen ko 14 juin 2012 dem leen la mu accordé interview ba ak ba mu demee Burkina juillet mille dix 2018 ñu interroger ko fa ci ay infrastructure am ak yooyu ak la mu fa tontu yooyu yëpp tàppe leen rek ngeen jàng li Macky Sall doon wax am na boo xam ne nee na ñu ngi fii duma bugguma leen téye yàgg euh, j'ai fait ma déclaration de patrimoine pour la première fois loolu mosu fi am mënoon naa ko bañ a def te bu sama mandat jeexee damay defaat sama déclaration de patrimoine 2019 bi ñu ko falee def na déclaration ba muy dem def na déclaration est-ce que def na déclaration Macky taxaw lu toll ni président de la nit koo xam ni kii dossier ba mu nga ci yoon mu Cheikh Oumar Anne dossier baa nga ca ca ca ca ca procureur de la république 31 décembre 2018 mu taxaw di ko défendre ci fen mu ne man d'ailleurs nit ñaa ngi wax rek euh, mais man ci euh, ci presse bi sax laa ko déggee nee na ci presse bi la déggee affaire Cheikh Oumar Anne eh boobu of nag la ma fekk Cheikh Oumar Anne ba mu demee ba xam ni mbir maa ngi bëgg a kii. dafa woo ki jiite mission bi ñu naan ko seex Ibrahima Pape Ibra Kébé di ko saaga ndey di ko tiital naan ko xam naa say xam naa fi ngay jaar danaa la nangam naa la nangam biñ di même Nafi Ngom Keïta di ko saaga Nafi Ngom Keïta sagement écrit au président de la République pour wax ko ko il n'a pas réagi keroog 31 décembre 2018. mu taxaw ne ci presse bi la ko déggee loolu lan la dëgg la walay fet ba pare ne foofu nag day day dépasse ses prérogatives maanaam euh, euh, li li ko war da koo passé parce que foofa conseil d'administration rek bu ñu d'accord ak directeur ba bu ko neexee lu ko neex def la xawla wala xawata les deniers publics un président qui dit ça booba Moustapha Diakhaté ngeeg moom ba mu fi ne du ma jël décret mukk di nommé sama rakk lu ci mujj ana ana Moustapha Diakhaté booba mais am na yoo xam ne il faut arrêter ba mu fi jël la responsabilité jëlub décret gracier un trafiquant notoire de faux médicament nangam jàllo ba ba ñu ko jàppee Touba gracier alors que dañ ko te cinq ans mu def appel l'affaire était en cours waaye xanaa xa xaaral ba ñu bare mu jël décret gracier ko ñu wax ko mu ni j'ai été trompé waaye yéen ban agent pénitentiaire mooy ñeme loolu ne de ko mu ne dana def enquête ana enquête ba lan la Macky Sall jotee kooka booba ana Moustapha Diakhaté ana mu Abdoulaye Wade mii ma leen di wax bi ko ñaari fan desee dafa am loo xam da ngeen ko war a xam dafa am benn sud africaine boo xam ni dañu ko jàpp ci trafic de cocaïne fii haute cour de justice tëj ko fukki at fukki at Ablaye Wade néeg ba ñaari fan wala ñett dese ko mu jëlu décret booba décret ba dañoo am complicité parce que décret bi mënut a gaawee noonu ñu jëlu décret mu gracier ko. ñu wax le son ministre de la justice Cheikh Tidiane Simoné président Afrique du Sud bi moom moo ko ñaan billahi wallahi taala defe ngeen loolu président de la république la ana Moustapha day wax fen li ñu gën a li ñu gën a kii ci kilifa gërëma di ci kilifa mooy kilifa d'abord kuy guy fen kilifa fen yéen ñi ñi jàng xam ngeen ne wax nañ ne yonent bi toog naag ñoom saaba yi ñu koy laaj nangam ndax jullit mën na ko def mu ne waaw waaye bu tuubee ñu baal ko ko ndax mën naa def nangam waaw waaye bu jéggalu ñu baal ko ko ndax mën naa fen mu ni laa fen moom jullit du ko def fukki at ak ñaar yim fi yëpp nekk yëpp day fen dama ni Moustapha Diakhaté mu réew mu soxar mi fukki at ak ñaar yi fi Macky Sall nekk yépp day fen waaw loolu loolu lu ñëpp war a xam la ak ak yeneen yu sew yu sew sewaan ah, contrat d'armement yi moo moo moo moo colonel la bu dugaluma li ci nag damay wax rek yow parce que officier supérieur à la ba am nga am ngay raison